yor mbir mi ñu toog bésu dimanche bi yëpp ñu yendoo ko ba takkusaan passé nii ñu def ko benn bés boo xam ne ñu ngi ko war ñu ko tuddee boobu benn journée pour ñaan maanaam bésu ñaan loo dal euh, li nga ñu ngi sant buur bi ci li nga xam ne tamit xéwal nañu ci lii ñu ñaan yàlla ñu buur bi tabaraka wa taala li nga xam ne moo fi voilà bi nga xam ne moom la ñu wax ci àdduna bi yëwaale ak yàlla na si yàlla mu jot ñu def ak amul lu ñaan ak waaw ci laafal mu moo tax ñu armé woo ñun sunu ñaan bi nga xam ne buur bi moo ne ñaan leen ko tey tamit moo ne ku ko mu uyu la kon boobu ñu ngi ñaan buur bi tabaaraka wa taala li nga xam ne tey moo doon moo sabab ñaan bi ak li xam ne tamit mooy soxla yi daal ëmb lépp daal buur bi yàlla na ci ci feebar bi yàlla na ci yàlla musal lépp luy aajo gudd fan ak yooyu kàttan ak yooyu mujj bu rafet yàlla ko yàlla defal lu may wax daal lu may terminé affaire daal mooy yàlla na yàlla nangul suñu ñaan bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla di ci subhanahu wa taala ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy wayjur ndax lépp lu am rek wayjur yow puso lañ doon bañ mu réer ci suñuy loxo kon alhamdulilah bi ñu amee tey bis bu la boo xoolee nag xam ni rek lépp yàlla la ndax kii asu dafa jóg am xalaat ñëw jël si ma ni nañ dem ci imam waxtaan parce que dafa am loo xam daal dama ko gisal ba ñu eggee di wax ak imam eggaluñu imam tamit ni ko man léegi laa ci doon waxtaan kon bis bi lu yàlla dogal la sant moo ñu taamul tamit bii bis asu nag dañ koy sant ñu ko santee nag moom ñu mu àndal yépp la ndax li muy daw ci quartier buñ ko ci jàppalee macha allah. ñun ñëpp dañu dégg imam dañ koy jéggale dañ koy féetale jàkka ji ñaan yi rek moom na dox waaye ñu ngi sa gannaaw loolu taxaw ñu ngi si incha allah ci kaw ci kanam yal na yàlla dool sutura yal na yàlla jàppale yal na yàlla saako ci lépp luy lore loo xam dañ koy ragal yal na ko yàlla daaxal njaboot gi ñu yàlla wóor séddale yal na leen yàlla defal fan mu gudd ànd ak wér leen réussite ñuy jàng dafa réussite ñuy liggéey barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun daal kontaan nañu bi ñu yàlla may imam bu mel nii may ñu délégation bu mel nii alhamdulilah ndax ñun dañoo am natt natt bu mooy lan moom imam Mamadou Ndiaye mooy imaamu gox bi man may Adja Assoubé di délégué de quartier bi donc li nga xamante ni lu lu laal kenn ci quartier bi rek ñun ñëpp dañuy jóg lii nii ñaan gi ñu ngi ko nas jeudi lañ ko nas ma ñëw di seet imam di ko wax waxu set setal ba ñu daaneel lu ñu wax waxu ñaan dugal mbir mu nas ko ci xelam ma nas ko ci sama xel ma ne ko imam dama doon xaar ba am lu ma jëndee ngir ni ñu ngeen doon ñëw ñu ci am lii ñu sant yàlla tey tey dañuy wax naan ñaanu marathon 10 heures ba ñu ko pare parce que dog bi moo guddoon des fois ñu leen ni 1577 yaa juddoo Batuwaa. ak 19 man lépp di ñaan rek yàlla def ci jàmm. li nga xam ne ci mooy balaa yàlla nekk dégg rek. waaw bu muy kii rek naan nañ ne rek daal di kii voilà <laughs> voilà ma ngoog. gannaaw loolu yàlla na yàlla yokk xéewal def naataange suñu réew musal ñu ci musiba ak bala bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam donc doon loolu daal en général ñaanal réew meeg bi ne te alhamdulilah te xëy na boo ñëwoon tuuti di nga fekk njàkk ñi fekk ñii tamit ñii ma seede ko ni daal ñun bàyyi nañ ko ak yàlla ndax moom politique boolewul ñun duñu man politique ni sama doom mu xam ko lool nag xam na te a ni moom xam na man xam naa yàlla xam na defuma nag li yàlla yàlla yàlla yàlla sax te yàlla fay ko yàlla defal ko li bëgg ci barke Seydou sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sànni ñaar ñetti kàddu yu ndaw rek ñu suñu jigéen ñi ci seen taxawaay bu rafet ak mais bëggoon euh, nga di sa gërëm di sa taxawaay Omar Omar jiite woo rek nekk ci kanam xamoo li ci ginnaaw ñaan li ñu fi def tey am ci yéene bu sàmm yàlla yokk jàmm ci réew mi musal ñu ci musiba ak bala na ko yàlla parce que formule bi nga wax sax foog naa ni moom ñu reprendre mooy ñaanu marathon am marathon bu 10 heures ba 10 heures ba 10 heures <laughs> waaw foog naa ni yow yaa ngi entraîné pour les Jeux olympiques de la jeunesse. waaw parce que moom war nañu ko boole ci compétition. compétition am na benn ñaanu marathon. ñaanu marathon Jeux olympiques. waaw 2022 vraiment di gës sant di gërëm di gërëm Astou Astou Gueye délégué de quartier li ma wax noonu li ñu ko wax nag dafa yomb. parce que mooy li war rek ko ni loo yëkkati rek mu jëm abattoir jëm si nit ñi bu ñu fàtte boole sonn ooy rek dinañ ñëw loo yëkkati rek dinañ ci jàpp ànd ak parce que li ñu remarqué xam ko te mu mooy loo jóg rek nit ñi tax nga jóg donc liggéey boobu délégué de quartier bi daf ko formalisé te loo fekk sa biir kër. ngay nag tëb doom jëmbat li nga fekk si biir kër gi yegg yàlla na yàlla dina kàttan ay waxaat rek mooy lu euh, concerné abattoir da nekk lu jub lu sell lu lew jarul ma ko ci jox parce que xam naa ne ci loolu nga ne euh, jàppal ni ñu ngi sa ginnaaw am na kenn abattoir ci ma jàpp maam ñaanal yàlla yàlla amiin amiin yàggal. amiin amiin yàlla yàlla yàggal suñu mag ñi. amiin may leen wér wér leen. amiin jaajëf léegi rek avant may ñëw maa ngi jóge kër maa Eliman. Eliman Lo yaram dafa aw suñu lan ko fàtte ci ñaan yi. parce que kilifa la ci gox góor bu baax. ñii doog a pare ñooy doog a añ ñi de. mais ba ñu jëlee tisbaar ba pare alhamdulilah gars yi xewlu nañu fii bu baax a baax a baax am na benn waa ji sant Ndiaye dama ko ne waroon sant Ndiaye ba may damay damay dugg si tase ak moom mu jaar gars yi xamu leen ko sax jaar ngeen leen góor jaar <laughs> waaw man dama yow jëm moo doon <laughs> jëm waroon a kon boog affaire bi daal moo doon na kii kii macha allah alhamdulilah amin amin amin waaw yàlla na kon kontaan rek ndax aussi wax na li nga doon taxaw ci set setal ñëpp wax nañu mais Euh, kilifa gi moo ni nañ ko arrêté ba beneen waaye nag ñu may wax ni rek yaa am fii sa batuwaay kenn ëppale ko kon nag loo fi def sa bopp nga ko defal moom nag mu ngi nii lu mu taxaw ñu itam jàppale ko ndax jigéen ju mën dóor yal na yàlla doolu sutur yal na yàlla sàmm yal na yàlla na yàlla jàppale li ngeen yéene ci dëkk bi yal na ko yàlla mottali ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla doon sunu mbégte ñun ñëpp yàlla amin amin amin bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam loolu jigéen ñëpp ma ngi gërëm ko sant alhamdulilah leen ñaanal yàlla yàlla yàlla defal barke ñaanu tey bi daal yàlla bu leen ci kenn amin ya rabbal alamin amin amin journée des droits de la femme waaw kay jërëjëf Guèye merci